papa looy def fii. waaye na nga def waaye koor gee métti rek. ça va bien koor gee métti rek ma ñëw bu fii rek toog di xaar heure bu xaw a kii tuuti rek ma avancé rek. waaw koor gee la xaw a waaye koor eh. ah booy booy booy booy nag soxla woon naa la. Hmm. ah bon waaw fi nga ñëwee nii Oke. baax. ok euh, parce que def benn affaire am solo. Hmm, hmm. waaw muy da ngaa yëkkati xaalis. jox ko Baye. muy téeméeri junni. Euh, Baye def xaalis bi ni ko neex munoon naa ñàkk jox ku ne nag ba mu des man. ah bon laaluma dara. Baye jox la sa xaalis. Baye dafa dóor moonin bi joxuma dara. joxuma ñaar dërëm non non non loolu. loolu la def parce que paa paa wu koñ bi yëpp. da leen a miiral ma ñëw tegal ko man fii lu fi munti am sama loxo lay jaar. Ah euh, waaw ñu sot ma moo waa këram jaas yi génn ak kuur yi ah bu doon a booy yi dañ may rey def téeméeri junni. mais Baye moom dafa def nag dafa violent te dafa agressif imbécile la euh, bu du woon nga xam ne day social comme yow ma dajeeg moom mu jox ma lii ci lay yëy moom moo ma ko jox ne ma père de ma ndog ok ok non père da nga ndog incha allah mais nag xoolal je désolé ah waaw te instant bi nga yoruma liquide te su ma hmm. yoree su ma lay chèque yi da lay sonal ma jox set voilà mi noonu waxtu moo ma dem banque il faut hmm. ma dem banque retirer cinq cent mille xam nga gars yi demee ay timbre lañ laaj te calpe bi dama ko fàtte timbre seerul ay téeméer vingt mille franc consor yooyu lañ may laaj quoi gars yi ngay waaru de mais waa ji man li ma joxoon xaaral booy téeméer ñu boole xam nga yow comme da ngay def ay social te lii bu ma la ko joxe dangay ngay ñëwaat libéré ma waaw waaw loolu moom am na waaw comme yow danga nga ciy jàpp te et puis kon yow xam kii sa waay ah sama copain la man maa ko ah, financé ah. mu tabax kër gi. luy wax nii. ah waaye liy tax nga nag. maa moom def nañ eh? def nañ France dix ans. luy wax ni yow yàgg nañ yàgg ah, yow mënoo bon yow mënoo bon sama réel bro. ah kii dafa baax Djib Sarr. yii sama gars yi Djib Sarr dafa baax. moo amul benn problème waaw mais xam nga nooy def. waaw léegi toogal fii rek. maa ngi fii daaj. voilà ni ko jàppee woon. fii laa ko noonu ma dem dugg cak cak ñëw. maa ngi lay xaar dégg boo fekkee may na la sax yee ma. wéet ma amul <laughs> boy <laughs> wuy ma maa ngi boo fekkee mel nelaw sax boo ma ñuusee ñaari pes ma jóg bu ragal loolu bàyyi dina xam ne xoolal ku lu aj ku lu ajjee la ku ku lu ajjee la sut rek bu làqarti moom bàyyi di baadoo la boo koy boot mu lay mat kuti la man ndox mi ngay jàpp di yàq di labar labaxi di pacax pacaxi ni doomi jën nga wax nga nga nga teg ko ci suuf laa wax. da nga pour la neex non non non waaye foo jëm foo jëm foo bëgg a dem foo bëgg a dem. lu xew ay lan la yàqu naa yàqu naa wuy sama ndey fan laa jëm. lan la ay lu xew. Ah, sama àdduna yàqu da ngaa def man lu xew. lan wax da ngay wax nag yow it. fu sama yaakaar eh, lañ des sama yaakaar lañ des boo xamul foofu nga jël benn mbedd rek di dem nag da ngay wax lan la. wax ak man lan nekkul fii. xaalis bi ah. xaalis bi xoolal xaalis bi fii. non may def. xaalis bi fi dara. yow na fii moom kenn nekk. ay eh, ñaata la woon ñaata la woon la yu tojul dërëm. 300000 yu tojul dërëm ñu sàcc ko. te fii moom kenn nekk fi kenn raxuñu. ki fi luyee kese moo ñu rax. je ne peux moom la. sama papa moom doo ko ñu ko jël ku dul moom moo ko sàcc localité bi moo ko jël ah moo ko sàcc non bul jiiñ bul jiiñaati xoolal bul jiiñ bul def tapas tuttum fii kenn mësu fee sàcc dara déglul rek li ma lay wax déglul li ma lay wax bul jiiñ ndax kooku xëy wàcc dem ñibbi liggéey dóor waar la xam bul jiiñ kenn sàcc mais li ma la mën a wax mooy dinaa topp enquête bi dinaa topp enquête bi def recherche bi te ko ci code xaalis bi dina génn incha allah yow man nga ni fuñ ki fi luye rek Abdou daal ngay bañ ko ko tudd. mii buñ nee Abdou rek nga défendre ko. booy jiñ nit sàcc day fekk nga jiñ koo xam leer na la ne yow kii ñàkk na sama yoon nekk kii yor kii sama mag la. amul xool di ma sàcc. Eh, yow mii sama kilifa nga. man ma la joxatul du ma la du ma la jëlal. waaw waaw moo tax nag moo tax nag. léegi nag enquête dañ koy topp kilifa day doon kilifa dinaa ko dox dox ko ama manière. xanaa kuy sàcc sax nga bàyyi wéeru koor bi bàyyi paase léegi xam nga la dañ dem ci sëriñ Diané. ba ci bu koor. Eh, eh. sëñ Diané boo fa demee du la recevoir ndax du la defaral xamul a tax affaire de sàcc man maa ni ko mu tëkk ko ci suuf. man moom bu ma demee dina ma recevoir moom. Seexul Xalifa maa ni ko mu dindi loolu parce que daa am ñaa ñu bokk ndey ak baay xamul ku ko sàcc mu sàcc ko nekk dem rakkam la liggéey rakk ja dee ñàkk ca bakkanam. ba ci ah? xaalis bi du fee. Ah, ah, loxo ba ne ba mujj da ca ñàkk bakkanam xaalis ba xaalisu lan xaalis da koo jar. xaalis da ko jox xaalis bi moom bu ma demee moom dinaa wax ak ku ne ku leen jege doo man la fala yow sax boo ko jëlee sax boo feeñee sax baax bu fekkee la da ngeen rus de da ngeen am gàcce de trois cent mille jarul rey nit de. yàlla bu sëñ Ndiané am xarit yàlla bu fóotur bi dox. waaw waaw man man mii buñ ma liggéeyee jàpp ma fi man du ma rus dinaa rus.